mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ah, di ziar ñëpp di dalal ñëpp jàmm ci seen ah, sit ah, number one bu njëkk ci wàllu point information ci mobile Sénégal di ziar ñëpp tey ñu ngi fii ci Cambérène comme ni ñu koy defee rek wooteeb Seydina Limaamu Almahdi mu toll si téeméer ak ñeent fukk ak ñaar muy cent quarante deuxième bi tey ñi ngi sant yàlla rek gannaaw. fekkee nañu appel bi ñu ngi ca jëm yàlla nañ ci dem ak jàmm incha allahu rabbi comme ni ma ko waxee sénégalais yi fi nekk di ko préparer ñu fekkee ko si jàmm ak salaam ñu nekk bitim réew jaspora bi tey ñëw yàlla teg leen si yoonu jàmm ñi mënul ñëw xam ne ah, borom woote gi ci boppam ma nga seen wet ñu toog foofu ah, ñu ah, wuy si woote googu incha allahu rabbi tey rek ñu ngi ci koo xamante ni kenn dootu ko présenté dañ naan ko Laye Makhtar sëy naan sëy naa mbañoon laay xàmmee ngeen ko ci écran bi moom la ñu seet say am lu ñu war a waxtaanee moom ci appel bi incha allahu rabbi laay Makhtar maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog askan bi ñuy seetaan. waaw bisimilahi rahmaani rahim aouzu billahi min shaytaan rajim mhm. laa xawla wala xawata illa billahi al azim mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam yéen waa Sénico ak ñi nga xam ne ñoom la ñu jàkkaarloo ñu ngi seetaan mhm. ñu ngi leen di nuy yéen ñëpp di leen di nuyu di leen di leen di leen jox cër di leen jox seen wàccuwaay waaleykum salaam wa tey moom ñëw nañu seet si la sa kër ñu ñu ñu ngi ci euh, nu mu tëti appel bi incha allah rabbi léegi rek incha allah xam naa moom ñun dinañ ñëw. incha allah ah, <laughs> dinañ ñëw bokk ci invité yi incha allah waaw waaw waaw dañoo bokk wuyu si nañ ba pare <laughs> wuyu si nañ ba pare incha allah rabbi <laughs> alors euh, Laye Matar naka ngay waajee appel bi waaj bi. waaw bisimilah rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sante yàlla. Mm-hmm. ñu ngi julli si. yonent bi sangu sang yi mm. seydina alimaamul mahdi seydi awalina wal axirina mm. di wax ni ñu ngi waajal appel bi mm. comme ni ko borom bëggoon rek ñu waat waate muy benn fanu beeru baraxlu euh, di jour appel ñii di ko wax appel ci en français -hmm. tubaab euh, nu mu tuuti arab bi di ko wax ajibo ajibo olof yi di ko wax woote ba woote ba donc aji boo daayee laay leen daan dégg léegi waaye mais léegi xam nga nit ñi dañ commencé changé tout di naan appel appel mm, mm. muy appelu Seydina Limaamu mm. mais yëpp langue la rek yëpp sotti si la ak def si la kon ñu ngi koy waajal bu baax di waajal bisu Seydina Limaamu boobu euh, fas yéene teeru ganu yàlla yi parce que ñu ganu Seydina Limaamu parce que bàyyi laay ba mu wootee def ne aji boo daayee laay mm-hmm. yaa masharal jinni wal insi inni rasulullahi donc ñu ngi koy waar a war a recevoir gan yi ganu yàlla yi évidemment ak jinne yi ah parce que hmm. jinne yi peut-être doo leen gis mais ah. bàyyi laay ay hmm. taalibi hmm. jinne bari nañu lool lool macha allah lool moo taxoon sang bi doon wax faites attention si journée yu mel noonu parce que nit ak jinne la bàyyi laay woo kon ñu ngi koy préparé bu baax Euh, war a sol suñuy weex rek ni nga xam ni moom la ko bëgg boo si borom bés bi bëgg mm. ñu defee ko ko noonu incha allah incha allah rabi ñu fekk ko jàmm kon ni nga wax rek ñu moytu ñi nga xamante ni kenn du leen gis waaw kenn du leen gis parce que ñooñu trois jours avant dañuy ñëw mm. boo dee seetlu mm. avant appel bi dañuy ñëw da ngay am benn ngelaw wala benn changement de climat waa waaw daan nañu ko wax ay borom xam-xam yi daan wax ne leen faites attention parce que jinne yi ñëw nañu bu ñu appelé ba pare trois jours après aussi si la ñuy décollé waat pour dem mhm. léeg-léeg nag da ngeen di taseeg ñoom mhm. ñu def attention parce que ñoom mën nañu gaañi mhm. bu doon jinne yu jëkkee ñoom peut-être am nañu yenn tolérance mais xale yi jinne yaa ngi fi léegi mm. comme xale yi tey rek dañu xaw a dëgër bopp mm. boo leen defee ñu def la mm. donc nañu def si attention si gan yi ñuy taseel ñu ñuy waxal añ bañ a ñàkk kersa kenn recevoir tout le monde xam ni jinne yi aussi ñi ngi ci quoi mm-hmm. mais ndegem bàyyi laay bu mu wootee rek la ndax waxu ba sax jinne yi waaye jën yi sax dañu wuyu si mm-hmm. jën yi nga xam ne ñoo gën a gàtt xel si lu yàlla bind ñu nuñ ni amana xëy na nit ak jinne ñooy xaw a dëgër bopp waaye kon nañ def attention xam ni bàyyi laay di teg jinne la woo. Hmm. mooy li mag ñi di wax rek euh, yenn saay euh, booy dem foo xam ni dafa dafa am ay mbooloo wala boog ay mbooloo ñoo fay daje. Hmm. da ngay teey. Hmm. tey xam lan nga war a def tey def loo xamante nii lu rafet la. rafet la bañ def lu ñaaw loo xamante ni xëy na di nga fa jëlee leneen. waaw parce que appel bu nekk rek nga gis-gis koo xam ne daf lay expliquer ni tase na ak lii. mais après vraiment dama jommi quoi. parce dama doon wax ak benn nit après lii ak lii ak la. ñooñu jinne yi la. voilà euh, euh, euh, lan lan mooy sa sa diggante bu ñu ko waxee ci wàllum nasaraan sa histoire ak borom woote gi Seydina Limaamu Almahdi lan mooy sa diggante ak moom. waaw sama woote sama sama diggante ak moom mooy. Hmm. damay wax alhamdulilahi rabil alamin ba ma juddoo yàlla dafa may doomu aadama. Hmm. parce que yàlla noon na la bind te du la def doomu aadama. Hmm. mu def la golo wala mu def la beneen espèce. ba mu defee doomu aadama aussi mu def ñu ñu civilisé. parce que mm. mënoon ñu nekk doomu aadama tout court te mm. wu ñu mm-hmm. bi ñu civilisé ñu am dégg-dégg ak man a capter mën a xam lu jaadu ak lu jaadu. mën a ràññee bi loolu amee yàlla mënoon ñu def yéefeer defuñu ay yéefeer mm-hmm. mu def ñu jullit. Mm-hmm. waaye ba mu ñu defee jullit ba pare am na jullit ñoo xam ne woote ak bàyyi laay bii li wax saydi awwalina wala axirina gëmuñu ko hmm. yàlla boole nañu ci ñi nga xam ne dañu ko gëmaat si deuxième sa seconde mission sur terre moom ak seydina isaa ruuhu laay hmm. muy jésus christ kon dañ koy sant yàlla hmm. kon ba ma juddoo si samay ñaari waajur yàlla dogal ma fekk ñu nekk ay laayeen sama papa seydina isaa la tudd man ma tudd seydina ma njoon donc na euh, am Seydina Mandione moo ko jox wird hmm. comme que may taawam bu góor. waaw ka jox wird mu daal mu koy. mu daal <laughs> mu koy tuddee macha mais aussi mu dama dugal alxuraan et tout waaye ma jàng nag daal di ràññee. Hmm. parce que say say waajur mën nañu mën na mën na mën nañ la jur si dara. Hmm. nga dem ba ci biir xool xool. gis loolu la doy wala yooyu. waaye ba ñu jàngee ba xool ba settantal dañuy wax alhamdulilah rabil alamin mm. ba ñu yàlla boolee si kuréelu Seydina Alimaamul Mahdi à 18 ans nag ma daal di teel a jóg mm. dem jël bi yott mm, Seydina Alimaamul di ko pratiquer ba ba léegi xam nga ni laa yéen à chaque fois bu jullee ba pare dafay def ñu kuy wax tasab tasab bi mooy euh, téeméeri bisimilahi rahmaani rahim téeméer alhamdulilahi rabil alamin téeméer wala dawalina amin téeméeri amin nga def ko chaque prière muy 500 basmala. mooy chaque njot parce que dañu ni nit ki bu génnee àdduna. malaaka yi xool livre am fekk fa 12000 basmala su wóor na texe ne du fis. bàyyi laay ni dee leen ko def chaque prière. léegi 500 basmala par jour. du yàgg sax du mat sax un an matal. Mm-hmm. moom la ñuy wax euh, boo demee ci yeneen tarix yi mooy jot sa bopp. ci mm-hmm. xaw ma am na ñu koy waxee ñoom. Mm-hmm. fi daawul sa bopp kon nit ki. ñun laayeen dañuy fi daawul suñu bopp avant ñuy dee dañu bàyyi ba dee rek ñu daal ñu ñu def diw defal lii di defal lu bàyyi lay def leen wax dañ doon wax naan mm. lii ngeen di jaamu defal leen ko seen bopp moo gën ñu leen koy defal mm. parce que amaana gaa yi leen koy defal du ñu am sax tal ka wala jot ga. Mm-hmm. gis nga léegi la fin des temps boo demee si cimetière yi gars yi téléphone yi. wala booy maa ngi ñëw waaye non léegi ñu rob euh, waaye imaam bi dafa yeex. Mm-hmm. donc ñooñu est ce que nañ la tal ñaanal. donc li ñu la defal ak li ñu ko defal sa bopp ban moo gën. Mm-hmm. ñu ne kon li ñu la li nga defal sa bopp mu ne kon defal leen ko seen. moo gën a wóor moo gën a wóor daal di gëm seen aal yi moom nag daal di teel a jóg nag daal di dem jël suñuy wér. di wirdu wirdu laayeen mm. loolu sànq ngay def waaw may def waaw ñun ñu tombé si matin et soir wirdu bi ak tasab bi bokkul mm-hmm. wirdu bi da ngay bi nga monsieur seytaan nga jàng téeméeri faatiha mm-hmm. après nga ni seydina muhammad rasulullah alayhi salaamulaay jàngee téeméeri faatiha nga def astafirullah azim alazi la ilaha illa wala alqayum mm-hmm. téeméeri yoon defaat seydina muhammad rasulullah alayhi benn yoon daal def salaatul faatiha allahuma salli ala seydina muhammadin il faatihi limaa uxliqa wala xaatimi limaa sabaqa naasiril xaqi bil xaqi wala haadi ila siratika mustaqim wa ala ali ak xadari midal azim cent fois nga waxaat intervalle bi seydina muhammad rasulullah alai salam daal def téeméeri laa ilaha illa allah boo jeexalee nag nga daal di ñaan inna allaha wal malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallama tasliman sallallahu alayhi wa ala alihi wa abihi wa ummi wa zawjati wa waladi wa jureti wa salama tasliman subhaana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wér ba daal di jeex loolu mooy wér da seen alimaaw loolu mooy saxal na ci diina ji ñu gëm ko lool nag gëm ko lool xam ni bàyyi laay aussi yàlla moo ko yónni dina jafe ci nit ñi ñu comprendre loolu comprendre niveau ko waaye soleil bi nga xam ne moo levé woon à l'est mm. s'est couché à l'ouest le soleil se lève à l'est se couche à l'ouest bu ñu wax le soleil nag c'est pas le soleil là le soleil là ne sa couche jamais ne se lève jamais mm. mais c'est la terre qui tourne sur mm. elle-même la terre bu tourné ba jàkkaarloog jant bi rek mm. après si lay weex ko wanee ginnaaw mu daal di ñuul ñu gëm ko lool nag xam ni alxuraan wax na ko wala xat ba ansna fi kulli ummatan rasulan mm-hmm. xeet wu nekk dinaa fa yebal yonent mhm. waaye ñun du xeet wu ñuul ndax ñun xeet lañu wala ñu ay xeet mhm. comme même les japonais nit ku jaune yéeg yëpp yàlla yebal na si yonent mhm. kon nag ci mbaaxook yàlla mu daa di jëlaat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëlaat Seydina a Jésus Christ ñu mm. doxawaat ci yeneen ñaari mission mm. fan lañ koy doxee à l' extrême ouest au bord de la mer mm-hmm. maanaam à l' extrême ouest de mm-hmm. l' Afrique mm-hmm. au bord de la mer loolu tax ñu ne maar yi day feeñ sa sowwu jant ba fa fa tukki yem waaw loolu mooy suñu rapport ak Seydina Limaamu ñu gëm ko loolu nag li sant yàlla kon à l'âge de 18 ans nga jël waaw sama papa dafa nekk nit koo xam ni dafa dafa dafa dafa dafa dafa am ngëm mu boole ak sama dañ ku nekk dañ deux ans kenn ki man 18 ans laa jël wérd bi kenn ki 16 euh, ans kenn ki 14 ans. Mm-hmm. loolu moo tax samay doom sama benn doom a nga ne Limaamu laa Seydina Limaamu laa ko mm-hmm. ans la jël wérd. 13 ans à 13 ans. pour pourquoi nga nga teel ko dugal. ci loolu à l'âge jaamu yàlla. Mm-hmm. ndaw la si yàlla gën a soxla. da ngay dem feneen ñu naan kii dafa jël wérd. wala ñu ne da ngay dem ba am 70 ans sax doo jël wérd. sûrement bu dee jigéen ñi sax ñu ne. doo dem jàkk ja wala doo jël wérte wala affaire wala buñ ne góor boo demee ba am soxna nga koy door a jël jigéen ñi boo demee ba am borom kër am nañu koy wax ah ñun moom la chez les Layènes bàyyi laay dafa teel a tiré la sonnette de la de l'alarme de l'alarme comme quoi que ni ndaw ja jaamu yàlla bi góor ak jigéen mag ak ndaw ak xale la mm-hmm. mu ne jaamu ga ñoo ca boole maase mm-hmm. loolu moo tax mu ne mu teel a jongal ngeen baal ma si waxee xarfal mm-hmm. liir bu juddoo bu muy judd une semaine après ñu ñu daal koy xarfal mm. xale bi nag daal di nekk kilifa mm-hmm. amatul sobe amatul mboñika di nga mën a ànd ak moom dem jàkk ja di nga mën a ànd ak moom dem ci rob yi mm. dina mën a taxaw ci sàpp yi nit ñi di wax laa ilaha illa mu wax laa ilaha mm. illa donc mu daal di teel am responsabilité si kanamu boroomam mm-hmm. waaye duñ taxaw rek ba xale bi war a mën a am jabar wala yooyu quoi loolu moo tax wirda bi mu ne xale mag a ci yam jaamu yàlla mhm. bi gën mhm. mooy jaamu yàlla bi nga gën a nekkee xale waaye boo demee ba yàlla soxlootu la jaru mhm. ko am na ñu naan nag boo teelee jël ay salaatu faatu yu wér bi da ngay dof man de 18 ans ba tey maa ngi koy pratiquer dof <laughs> waxuma sax dof mais miir sax defuma ko macha allah loolu loolu am na solo alors euh, Seydina Mandione laay laay Makhtar est-ce que xalaat nga un jour ak li nga jot a expliquer nii yëpp ni nga ni nga ni nga ni nga ci teel a dugg teel a jël 18 nga jël wetu bi. Mhm. sa kilifa gën gën la gën la yombalal mbir ma ngay nekk xale. Mhm. mu teel la cee dugal. yow nag xalaat nga am loo xam ne mën nga ko jëmaal wala boog nga tuddee ko. Euh, euh, yoon bi wala boog ku tedd gi Seydina Limaamu Laay mhm. comme livre wala boo comme yow dañ lay gis ci affaire scénario yi nga am benn scénario boo xam ni nga ko mën di nga ko mën a euh, préparer pour moom nga rendre ko hommage voilà. waaw yaakaar naa ne euh, xëy na dafa doyagul waaye maa ngi ci maa ngi rendre hommage Seydina Limamou. Hmm. parce que ku gis samay œuvre hmm. man je suis artiste comédien. mais si bëri da ngay xam ni kii Sénégal laayeen. am na sama film yoo xam ne dañ ciy jàngale jàngul Limaamul hmm. Mahdi. am na benn film boo xam ni bi euh, mi ngi tudd euh, Nobel. alors que sama papa dàqul woon si mariage bi. ma takk jabar ji et jour bi mu amee doom ma ni pour imam bi ñëw tudd doom fi mu ne man sama yoon newu ci mm-hmm. man ba ma la waxee ni la ki ma neex ngay takk mm-hmm. nga takk ki la neex laa ci génn ma ne ko doom ji nag kan moo lay tuddal kan moo mm-hmm. tudd <coughs> me suis débrouillé man naa tudd sama doom yoo xam man maa tudd man ñu wër xale bi rek yow nga man leen sikkër leen ñu sikkër parce que laayeen balaa ñoo tudd doom dañuy wax lay laay la la lay la Seydina Rasulullaay lay laay laa la ñi aw ñi aw ba dënd bi tàng ganu yàlla la ñu am mhm. ñu teeroo ko turu yàlla mhm. tudd ko buy génn àdduna aussi bu ñu koy sang loolu la ñuy waxaat bu bañ koy robsal boroomam mhm. donc euh, loolu moom la laayeen di préparé kon sama œuvre yooyu di nga gis yu bari yoo xam ni dama ciy wax ay message ay message yoo xam ni xam ça vient directement de l'imamul Mahdi donc euh, souhaité naa tamit jour pourquoi pas am daara daara daara bu mag boo xam dama koy tudd daara Seydina Limaamul Mahdi mhm. waaw mhm. wala boo foo xam dañ fay jàngale xam-xam mhm. ma tudde ko Seydina Limaamu wala ma tudde ko doomam ja Seydina Isaa parce que ñoom ñaar ñooñu mission bi dañ mu def ni woon bu matul Seydina Isaa na ko motil parce que téere yi dañuy wax laa Mahdi yun ilaa Isaa Mahdi yu du ñëw mbukk ndara àndul ak Isaa soit bii yoon nag daf koy jur daf koy jur. Mhm. wala mu nekk mhm. surgaam ci kër mais heureusement pour nous bi mu ñëwee daf ko jur. Mhm. instant boobu nag moom. si 33 ans la demoon. mais bi muy ñëwaat aussi si 33 ans la toogaat ci xilaafa gi. daat fi toog 40 euh, ans ci euh, ñu ne woon aussi bu ñëwaatee. cette fois ci dina am soxna dina am ay doom. te bu génne àdduna dañ ko rob si dëkk bi ñuy wax Médine. kon de kon ñun mën nañu tàndu boon. Seydina Issa à l'âge de 33 ans la succédé papaam. bi mu toogee mu toog fii 1909 euh, ba 1949 di 40 ans yi mhm. bi yoon am na ay soxna mhm. am na ay doom moo jur ñoom Chérif Abdoulaye Thiaw Laye moo jur ñoom Chérif Ousseynou Laye ñoom maam Ibou Séni mhm. bi mu génnee àdduna ñu ngi ko rob Médine fii Cambérène libu yu ñoo xaw déformé tur bi ak waalo waaye neen Cambérène ñii di wax Cambérène mais kam Médine la ko bàyyi lay tuddoon nekkul woon fii mais ma nga nekkoon fële si côté Fadia. d'accord waaw mais à cause de la pest moo tax ñu indi leen côté. toppal moo donc. Hmm. Cap Médine. Hmm. donc euh, am na yéene. Hmm. tudde ko si yooyu. wala boog def benn livre boo xam ni. Euh, da nga koy da koy da koy gën a yaatal. nga am loo ci détaillé daal yaatal parce que mm. Baye Laay wax na lépp. Mm. ci xutba yi mm. les six sermons de Seydina Limamou ak les deux sermons de Seydina Issa. wax na lépp waaye gën a yaatal rek. parce que tool bi moom dafa yaatu yaatu boo xam ne. ku nekk sa niveau de compréhension. nga jéem a dugg si secteur boobu pour jéem ko man nga defoon ci benn scénario dina ma neex trop. dem si yenn sites yi. Ningala. Cambérène Yoff mm-hmm. Ngor ba am loo xam ni yow tamit yow sa bopp yow nga am loo xam ni mën nga ko ci wane ngir askan bi xam ci yoon bi lan la la def nan la la gindee nan la la defaree loolu tamit na ci am solo. waaw xam nga euh, avant Chérif Ousseynou di génn àdduna. Mhm. y des artistes comédiens yu dëkk na mhm. dafa génn sa dafa génn livre wu kii bi nu mu tudd xutba Seydina Limaamu bi mhm. mooy nga xam ne assanti la moo ko gën gënoon yaatal. les six sermons de Seydina Limamou et de Seydina Issa mu ne def leen ci un film. Hmm. film boobu nag man ba tey maa ngi ciy xalaat. waaw parce que scénario bi rek boo footee xutba bi rek. Hmm. boo ko doon ne dama koy def film doo ko mën def film donc il faut nga seet nan nga koy defee mm, mm. maanaam woote ba mm. gàddaay ga ba mag ñu di wuy si ba ñu ñëwee ñu gëmoon ñu weddi woon ay mbokk am et tout pour mu mën a nekk un scénario Cheikh Tidiane Diop ba mu bëggee bind une si longue lettre mm-hmm. pour def ko téléfilm daf ko adapté waat indi ay flashback yokkaat ci lii yokk mm. mais yëpp nag du génn mm. la réalité doo si sos loo xam ne bokku ci woon doo si dugal loo xam ne aussi un plus la boo xam ne bokku ci woon mm, mais loolu ñu ngi koy pour def un boo xam ni soit gàddaay ga tudd wala aji boo daayalaay wala wooteeg Seydina Limaamu wala way gëm saa ça si nekk rek yëpp rek dinañ si jéem yooyu mën naa nekk incha allahu rabbi alors euh, beneen beneen laaj bi mooy que ne sa euh, premier ziar ca yoof xunt ba wala Cambérène si ñett yooyu ban moo la ci gën a impressionné. waaw xam nga ñun ba ñu nekkee tout tànk hmm. dañ daan yàkkamti sax dem yoof hmm. bien que nag ba ñu nekkee cinq ans sept ans ñun xamuñu sax xamu kañ lañ ñu xarafal. ba hmm. ñu nekkee liir de toute façon. mais daal xàmmee nañu rek. ñu ñu yóbbu si jàkka ji ñu dem di julli ci waaye xàmmee nañu aussi jour eet bu amee. soit tabaski wala wala korité suñu papa jëndal ñu ay yére yu bees. daan ñu dugal ci otam daan ñu yóbbu jàmmalaay. fële ci Seydina Limaamu ngeen julli ji ñuy julli mm-hmm. mais li lay gën a frappé boo ñëwee mm-hmm. nga dégg sikkar ba nit ñu sol yu weex yi rassemblement am laa mm-hmm. la laa ja takkar naa toog bi rafet at ah, bu rafet ah kenn du wax sa bopp jubbantigul ak fii affaire yu rafet yu jub xoj ah, waaw de benn paa daal ngay dégg bàyyi moo ma mu naan jàll leen booru mm. géej jàll leen booru géej yëf yi jaar fa ñëpp sol lu weex am na ñoo xam de noo laayeen yoo xam bu ñu fa ñëwee sax seen yaram day daw ñu yuuxu di jooy ci moment boobu à l'âge de cinq ans parce que maa ngi dugg alxuraan boobu ay cinq ans jëm ay sept ans hmm. si la ñuy ràññee ni kii nag mooy Seydina Limaamu en posant une question suñu papa mu ne hmm. kii mooy sang bi Seydina Limaamu Mahdi hmm. bu ñu jullee ba pare ñu dugg ziar ànd ak moom bu ñu fa jógee daal di ñëw ziar euh, doomam ji Seydina Issa Rohou Laye donc mu nekk loo xam ne ba tey daf ñuy marqué mais li ma gën a marqué marqué marqué marqué si tout le temps damay dem Yoff julli ji juma ah. bu ma julli jee jumaa ba pare daal di dem ziyaar yi sang ba Seydina Limaamu mm-hmm. mais li ma gën a yéem li ma gën a euh, li gën a nekk sama kii mm-hmm. ah, bis bi ma xam si laa gën a am émotion bi ñu ma ubbilee xabru ci biir mm-hmm. ba ci ubbi sànq bi xam ni fii Seydina Limaamu moo fi tëdd ci am loo yëg mooy am lu ma yëg ma tëdd tëdd ci. Hmm? après j'ai craqué après ma ne alhamdulilah rabbil alamin ay nit jóge nañu fii di paas di dem ba màkk. Hmm. ni dañuy umra ji wala dañ def te xaa na xaatumu na wa hmm. imaamul mursalina a ngi fi. Seydou awalina. bu weetu woon sa màkk parce que ba mu ne ajibu daahila. kaay wuyu yàlla. yaa macharal jinni wal insi. yéen jinni yeeg nit ñi inni naka man rasulullah yàlla moo ma yónni si yéen. coow la dafa bari. waaw eh bi jeex na fi. mu ne muhammadul bii di. xat as al wada muhammad ma weexoon mu ne waa ñuul na ñu weddi mu daal di xaaj jëmm ji bu côté droite bi bu ko xoolee mu weex tal côté gauche ba ñuul ko bu xoolee fu weex fi ni muhammadu rasulullahi laa ilaha illallah bu xoolee fu ñuul fi ni limaamu laay rasulullahi laa ilaha illallah mu ne yàlla yoo yónni na ma si yéen ngeen weddi ma ngir lan der bi ak yàgg complexe ak a yàgg si nit ku ñuul ñoom yaakaar nañu lu baax rek c'est le tubaab la wala ah, daa war mhm. mais jour boobu daal pour mu ñëwaat rek bañ mhm. ba ma ubbee ba ñu dugg ba mu dugg si bàyyi lay kooku moom yëg naa loo lu rëy rëy rëy rëy mhm. booleeg nag yoo xam ne ay miracle yoo xam ne léeg-léeg nga dem fenn soit nga nga xam ne yow kii sang bi taxawu na la quoi nga woo ko ñetti yoon rek mu daal di lay wuñ nga nekk ci ay situation waaw nekk situation yu difficile wala réer hmm. jóge nañ fii dem waalo réer ay si ñu dëkk ak dëkk ba ay hmm. kilo ay kilomètres ci guddi gi dans lu noir hmm. nga xam ne ni ma la jege yi soo du la gis ba ñu demee ba jaaxle dañu ko wax rek li ba sa laay rasool laay bàyyi laay mu baa may la sang bi daal ñu gis ay lumière yu ñuy indiqué ah. ñu ñuy accès wallahi ancien loolu kañ la. billaahi lazi laa ilaaha la dañu jógoon fii man ak benn waay bi ñuy wax Dut Saar Ndooy mhm. ak Libaas Diop. Mhm. boobu ñu ngi yor benn daayira bi ñu wax gëm tey dëkk. Mhm. ñu def ay recherche. bu ñu demee ñu dem dëkk bu ñuy Nayre. ñu daal fa. après ñu ne ñu dem benn dëkk bu ñuy wax Tës. ñu dem foofu ziyaare leen après ñu ñibbisi. ñu dem fa foofa timis paas ñu ne ñu fanaan leen ñu ne noo dañu ñibbi. parce que tàggoowuñu woon fanaan. mais ñu génnee rek mu lëndëm. gisatuñu dara. ñuy dox di dox ba sonn gis ñu dara. ak àll bi ni muy lëndëmee. ak lëndëm bi doo gis sax sa morom bi dootoo gis dara dootoo gis dara. mu yàgg ak un gars bu ñuy wax du Sarr mm-hmm. daal ni man de defoon naa def naa militaire. Mm-hmm. à travers les étoiles mën naa ci indiqué wu ba dem. Mm-hmm. mais ñuy dem di mu topp étoile rek. topp si étoile dem ba sonn ñun daal xamuñu fu ñu jëm. bu jékku mu yàgg rek sukk. ñu ne gars yi ni leen woo sang waaw waaw ñu croisé suñuy loxo rek li baa sa laay rasulullah ji takkarnaasi ñu jëkk bi yaa gis benn lumière ni nii fii ci kaw mu wuyu ñu ne i eh, am na benn lumière bu def nii de macha allah ñu topp lumière ba mu yàgg gisutuñu lumière bi ñu koy wax mu yàgg mu def nii suñu côté gauche mhm, mhm. ñu toppaat foofu dernière lumière bi nag troisième bi nag si la ñu agsi ndekete si kër gi ndekete borom kër gi mhm. moo yónni doomam ne demal si sama mu am loo ma seetal jox ko torche bi xale bi génn au lieu mu dem si li ko papa mu ci ci asamaan si ndekete mi ñuy wan yoon te xamu boobu sa naa la ku tedd ki la bi la mhm. mu daal di génnaat daal mhm. koy defaat une deuxième fois génnaat ndekete troisième fois bi nag papa ji ni li ma la wax du loolu mhm. delluwaatal bi mu delloo nag muy muy foo nag di def nii nag ndekete mi ngi fo mu ñuy wan yoon bi ba ñu agsi donc euh, loolu Jean i laay waxoon mu ne sang bi foo mënti nekk dina la fa fekk moom foo nekk dina la fa fekk Seyna Lim Seyna Issa foo nekk dina la fa fekk Seyna Amadou Diop foo nekk euh, dina la fa fekk loolu mm. moo tax bàyyi laay par miir ak léeg-léeg nga gis ay affaires yoo xam ne mm. bu ko ci wooyee rek mu daal di lay mm. mu daal di lay wuyu si loolu moo tax ñu ne limaamu sa waaye du jàq du jaaxle waaw moo tax mun leen taaj naa leen ba bagaan goo xam ni mënu leen ko jeexal fi si àdduna tàgg naa baxaal goo xam ne di ngeen ci lekk ba suur fii ak àll diggu ma ak yéen nag fii ci àdduna. Mm-hmm. waaye àllaaxira incha allah. Mm-hmm. di ngeen xam man maay kan man li ma am. loolu mooy ay kéemtaan. Mm-hmm. Euh, maîtriser nga duwaawu xalaas. duwaawu xalaas mooy bi kalimaat ilaa ilaa mooy bi ah, eh, saxeer bind. dama koy déglu tout temps mais maîtriser wu ma ko. ban ban nga ci maîtriser boo ci maîtriser wax ñu ko ñu dégg ñu déglu boobu. ay xundoon ngeen bu libaas ñang xundoon ngeen yii ku mus muy géej du neexum ndox mm-hmm. ku naan bi li baa ne dootoo dox mm-hmm. di saytu sa ndaa di rootaat mm-hmm. mu dellu si jànq dem faati ki làbbali yoon wi moo maati bu leen bañ ci bu maa ngeeti ku bañ wili waali xaaraat wolof nga ñu feeñu bis ni ki tey olof laa naam pa way la ba tey hmm. liggéeyal yàlla moo gën a yey hmm. te farlu si na si kontaane ak yeneen ak yeneen ak yeneen ban ban moo la ci gën a neex <coughs> ban nga xam ne boo ko boo ko dégloowee dina am looy ressentir waaw waaw mooy benn bi mooy hmm. euh, aji boo daaxee laay bi xam nga bàyyi dafa woote rek benn fanu barax lu yéeg sa montagne ba kenn liggéeyewul mu laajte malaan ya ñeenti malaat ya sàngoo ñeenti ya daal di yuuxu nag aji boo donc loolu ya daf na jëkk wax ni alhamdulilahi lazi lam yazal mhm. alhamdulilahi lazi lam yazal mhm. alhamdulilahi lam yazal daal di nag ajibu daa yàlla yaa ma'shara jinni wal insi inni rasulullahi ilaykum mhm. ba mu fi jógee nag dafa dugg jàkk rek lay lay la la parce que laayeen avant ñuy julli dañuy zikr dañuy zikar surtout zikar bi laa ilaaha illallah rek laa loolu to alxuraan la laa ilaaha illallah rek doo dégg doo dégg doo dégg leneen ak leneen ak leneen laa ilaaha sayyidina rasul pendant quinze ou vingt minutes ba sa hmm. xel mi yëpp génn ci àdduna waaw nga daal nag taxawal julli nga am présence yàlla moo ko wax fa zakkir isma rabbika fa salla hmm. mu ne ni ngeen tudd seen turu borom te ngeen julli waaw waaye ñëw rek allahu akbar non lu ñuy contesté mais nag yàlla moo wax si alxuraan ne ni ngeen tudd seen tudd borom ba pare ngeen julli ngeen door a julli nga nekk à l'aise bu bëri génn sa xol nga mm. daal sa taxawal nga gën a jege borom non seulement sax loolu da ngay jege day mm. dàq seytaane mais mais day tax lépp lu paan wala lépp lu xotteeku su julli gi mm. moom daf koy réparé daf koy réparé waaw te loolu boo seetee chez les Layènes moo moo remplacé moo remplacé taaye def sa loxo mm-hmm. <laughs> bàyyi laay wax na ko benn saaba ni que mm. ba muy soog a gëm mu ne looy def nii sa loxo mu ne que damay taaya mm. mu ne que dañu wax ni boo defee nii sa baaraam da ngay dóor seytaane mu ne àllaay mm. seytaane da nga koy dàq balaa ngaa dugg si jàkk <laughs> si waaye boo taxee ba dugg si jël kon duggoon na xanaa dàq boo gën a wóor de mu ne nag lan moo gën a gaaw dàq seytaane mooy laa <laughs> ilaha illallah mm-hmm. ñii aw lay laa ilaha yàlla an limaamu mm-hmm. limaamu ana moom sama doon waaw sey Seydina Rasulullah mhm. dem dem da nga xam ni rek mhm. eh, xol yi daal daal dina féex rek mhm. nga daal di nag dugg si julli boo paree nag ndax da ngay sant dangay ngay yàlla ba pare rek dugg si julli boo paree rek dem déedéet da nga koy sant après mi ngi mel ni géwél bi xam ne dafay ñëw rek balaa moo ñaan gërëm daf koy tagg da koy tagg waaw waaye ndax bu ko taggee ba pare rek dafay dugal si poosam rek dem. Hmm. daf koy naan ah, yow mi nga xam ni. yaa ma yóbbu mag ba yaramam tàng ba yaram bi tàng kay mais asama ak borom a borom bi boo ko tàggee. <laughs> ah da ngay ngay neexal. dañ koy eh, neexal boo paree tamit nga ko. laa ilaha illallah. muhammadu rasulullah sallallahu alayhi fois. Hmm. allahumma salli trois fois. Hmm. soo ko ñaan. lépp la loolu mooy diine li mais mais est-ce que tey euh, Seydina Mañoon laay. laay mata à l'âge de 18 ans nga jël werd lu toll ni artiste comédien jël werd à l'âge de 18 ans te moo moo est-ce que dimbaliwu la moo tax musuñu la dégg ci yenn yi. waaw xam nga ñun laay dañu teel a yar. Mm-hmm. gannaaw ba ñu suñuy waajur yaree ba pare. Mm-hmm. dañu doon bokk daayira. Mm-hmm. bokk naa daayira ay gëm tey dëggal. dañ doon def ay cours arabe. booleeg li nga xam ne alxuraan bi nga xam ne jàngoon naa ko. Mhm. xam nga fii c'est un lieu saint. boo fi nekkee. Mhm. ñi ngay àndal gi yooyu yëpp diine la ngay wax. diine la suñuy discussion du rap du ay ay football. Mhm. mais lenn ngay wax. non du ñu taayee nii lii la ñuy waxee nii nii la ko bàyyi laay indee yooyu discussion ah, yooyu rek ngeen di waxtaane waaw bi nga zikr bàyyi laay indi ko nii nii la ko indee yow dama nga baat di ay affaire yooyu donc loolu nga nekkoon ak wérde bi ngay teel a jël daf lay dimbal si lu bari surtout su seytaane être artiste xam nga dafa am ay des fois. yombul ah. yombul ah. mais avant d' être artiste aussi on est des musulmans. waaw ba ñu nekk musulman ba pare yàlla dinañu ñu si ci diina ju sell. Hmm. xam da sol weex. njàpp hmm. njàpp mu jot. Hmm. xale bu tuuti. sol jiinam sol kasketam daan nañu ko def mais suñu course mu ngi suñu poche. bu ñu jullee ba pare daal jéem suñu course rek daal def ay affaire course <coughs> moom kenn du ko téye di wax lu bon. non non ba pare sa course mm-hmm. loolu nga nekk la moo nekk sa dënn mm-hmm. nga xam ne yow mii tey bu ñu la joxee tànt bi tey pour pour pour ay jàng man nga fanaanoog jàng ji ba asamaan set mm-hmm. donc loolu aussi bokk na si lu ñu dimbali di diine day dimbale nit diine ku ne diine nag wax alxuraan waaw ku ni diine wax alxuraan te loolu dalay dimbali si lu bari loo dem dem même boo déraay moytu di nga ñëwaat. di nga ñëwaat ah, donc loolu sol bokk na si. Hmm. li ñu gën a jàpp ba pare ñu jaxasoo nag suñu sëriñ si. Hmm. Hmm, jaxasoo ñoom léeg-léeg ñuy defal ay tee ba ñu wax ay xam-xam. même dimbali jéen ay mercredi ñu daan dem kër Chérif Ousseynou. ah di fa nekk euh, di fa def ay tee débat naan avos siloo jël leen silo seen petit carnet de noter. dina la <laughs> dina de léeg mu wax loo xam ne da koy noté mhm. ah, léeg-léeg nga toog ak suñuy sang yi mhm. ay xalif général ñoom mhm. bayraan pourquoi pas wala sëñ Ablaye muy waxtaan ci ci démbam enfance ngeen toog ak ñoom ah, nga toog ak ñoom wala Baye sii di Baye Sidi Thiaw doon wax naan sanga bi nga xam ne sa sëriñ bi nga wax xam ni danga nii ni da ko gëm te fii si àdduna mënoo ko gis nee ndax yow mal xiyaam bi nga ko gis wóorul waaye nag am na ci ay condition am na ci ay condition condition yooyu noonu boo ci doxee. Mm-hmm. mën gisee boobu mën naa nekk de. waaw parce que nga ñëw soxla sa sëriñ. Mm-hmm. rang fa une semaine. Mm-hmm. quinze jours wala ñun la gis ñu ko. te nga ni moom nga yaakaar àdduna ak àllaaxira mu ne ndax boo demee yow mal xiyaar duñu ko gis. waaw ah, boobu moom wóoru nag. man kay ki ma gëm. yaakaar dama lay mën a gis nag. dama lay mën a gis sur terre. <laughs> <laughs> yow boo ma soxloo gis ma. avant loolu ma wooloo ma ñëw te yow ma la soxloo du ma la gis. waaw ah, rek pour ziar la. Ah, ñun nag daluñu ñun lay le laayeen. Mm. suñu sëriñ si. Mm. vraiment dañu nekk ñoo xam ne ñu modeste lañu. Mm-hmm. koo ci dem ci këram. Mm-hmm. Chérif Ousseynou dañ doon toog di lekk ndoo suppu kaañ gi. moom mu jël di la ñeexal. di la ñeexal à maintes mm-hmm. toogal ñu lekk ñun ñoo ñun ñëpp ñu toog si suuf ñu lekk commencé di lekk. te doomu Seydina Issa la. de la même même chose que ay ñoom Baye Raan Baye Seydi Thiaw ñoom mm-hmm. ñëpp. Mm-hmm. yooyu yëpp dañ ko doon def. Mm-hmm. waaye nag dañ ko jàng si seen maam. waaw Seydina Ali Maamul Maalik mi nga xam ne si suuf rek la laan toog ñu ne déet waay mu raay suuf si di fer popp ceeb ya di ko lekk. Mm. ak pépp dugub bi. Mm. ak boolekaak laa ilaha illallah laa takkanaas ñu naan waa axlu laay. Mm. ñu naan ñu tuddee ko Baye laay Baye bi nga xam ne foo ko fekk rek laa ilaha illallah. waaw moo indi turu bàyyi laay bi. boobu leer na waaw ah. leer na alors euh, waxtaan bi neex na bëggoon naa dugg si yeneen i ponk mais xam naa duma ko jeexal damay dama lay gën a aay rek ci affaire u scénario yeeg yooyu noonu. Mm-hmm. parce que man kàddu koo wax rek damay génn benn scénario. <laughs> <laughs> ñoo ngi jégalu bàyyi laay moom li mu fi indi lépp. Mm. yaakaar naa nañ ci def ay. du jeex de du jeex de wallaay du jeex ñu amoon des eh, producteurs. Eh. yoo xam ne war nañu mën a financer affaire yi. Mm. non kon dinañ fi bind loo xamee ni. Mm. dina dina yéeme loolu. te soxla nañ ko jamono ji pour ñu gën a gindi ndaw ñi. parce que ci ndawam am na njàngale yu bëri yu nekk ci moom. njàngale ba mu nekkee pêcheur waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. à l'âge de 40 ans. parce que Limaamul Mahdi aussi fan la tur a jóge. mu ngi jóge Cheikh Omar Foutiyou Tall. Cheikh Omar Foutiyou. dem fa c'était mm-hmm. 14. dem mu ne lan moo doon seen tànk ñu dañu woon jàppale si jiyaat yi. mu wax leen si en pulaar ni leen mu leen di xool. bi ma xoolee mu yàgg mu gis leeru Limaamul Mahdi si ndiggu xale bu ñuy wax Al Hassan mooy papa ah, Seydina Aliou ah, mu daal leen yéen dellu leen diine moo leen di fekk waaye leen fekk diine parce que limaamul mahdi yu buy sauvé àdduna sëpp si yéen lay judd hmm. boo leen demee ku am doom na ko tudd limaamul mahdi yu bi ñëwee kenn ku si nekk si ñoom yàlla may na la doom bu góor waaye boo tuddee limaamu rek mu dee ah boo ko tuddee Seydina Limaamu rek mu dee ba mu des la seul Limaamul Mahdi fils de Alassane et de Coumba Ndoye mhm. Limaamu mënu fi taxaw ak beneen beneen Mahdi bi mhm. ñaata yoon nga fi dégg ay nit naan yàllaa ma yónni ay Mahdi mhm. ay yoolu Mahdi du Soudan Mohamed Lamine Dramé ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais tubaab bi ñoo leen di rey soxal dañuy gaaw a effacé wu yàlla dafa fiir loolu moo tax attention pour ñuy weddi bàyyi laay ba pare di ko ŋaaññe yàlla mu fi nekkoon temps Namrod mm. yàlla mu fi nekkoon temps na mm-hmm. ba ñu wax ni man maay yàlla mm-hmm. ak ñenn xoola mu jëlee leen fa yàlla moom moomu ragalul Seydina Limaamu déedéet ba muy taxaw fii di intoxiquer nit ñi di wax loo xam ne du dëgg mu bàyyi ko fi nag ba cent ba cent quarante deux appel bi di continuer ba tey ba pare nag géej gi mm. ñu rob ko fii en 1909 géej gi rus ko ba nga xam ne sax du laal taaxu jàmbalaay ah. ñu ne déet waaye zam-zam mi heure bu màkk xewlee ay arafat zam-zam mi dem dimbali ji. Mhm. bu jeexee mu ñëwaat. Mhm. waaye yàlla moom xanaa daf fi nekkatul boon ba tey bay far nit ki si ay naafeq. Mhm. nit ñi dañu xoolaat seen téere. jàng nag taxul a xam ne. yàlla rek moo lay baaxee. dix mille francs mën na wax def fii cinquante personnes dëgg ko duñ ko gis. mais kenn ko yàlla baaxe rek moo koy gis. kon yëf yi nekkul si njàng. man nga jàngatu doo gis. waaye nag attention si kuy weddi. Mm-hmm. attention ci yu weddi mm-hmm. ñu nit ku ñuul dañu wa te loo xam ne sax ñu ñëpp dañ ci wax mm-hmm. dëkkaatug limaamul maadu yu limaamul maadu yu ne peut être que Seydina Mohamed maadu yu bu ànd ak Isaa bàyyi leen Isaa moo koy jullee bàyyi laay bi mu amee 33 ans la Seydina Isaa juddu bi Seydina Isaa demee ba am 33 ans bàyyi lay génn àdduna Mhm. ba pare fii si géej gi yàlla bind fi Muhammad miim Adam dellu miim de les quatre îles. Mhm. benn miim ji mi ngi commencé si bàyyi laay ni miim mënoon na xëcc jëm côté Cambérène. kon dañ naan arabe du binde noonu. Mhm. arabe de droite à gauche lay binde. mais miim bi la ko def xëcc jëm ngor. mu dem ba ngor mu def Z Adam dellu. dem ba île de serpents mu defaat miim def sadd gaa nga ca kaw bu fekkee da ngay dem île des serpents. dafa am île bi ba pare am maas gaa nga ca kaw. nga dem gore mu nekk del mel ni ku lef geenu jën mhm. muy miim aadam dellu miim dellu muy muhammadu ñu ne fa limaamul maadu yi di feeñaat muhammad tegtal ba day leer dañ koy gis nii quatre îles yooyu lu tax nekkul mbuur <laughs> si presque loo tax ko doon la presqu'île <laughs> kon alhamdulilahi rabbil alamin mhm. di préparer appel bi di si invité ñëpp nag mhm. di wax ni bàyyi laay ba mu wootee rek yemul ndakaar waaye yemul Sénégal yemul Afrique waaye c'est le monde entier tubaab yeeg yëpp ñu jé jóge un peu partout dans le monde ñëw di wuy si limaamul maado yi te lu yàgg nag dëgg la laay mm-hmm. maxtaar mm-hmm. kon yàlla ñu mm-hmm. bu baax a baax sëñ euh, la ñu seet si woon foog naa ne jàngee ngeen ci moom lu bëri te découvrir ngeen ci moom lu bëri ma ne découvrir naa ko ndaxte ba mu teewee kurus gi laay agsi ba mu agsee ca la ma ci laa bokk ci ñaan gi loolu moom sant yàlla la Seydina mais moom xaw ma da moom dafa tudd Seydina Limaamu moo tax bi mu demaat waaw ari aliwul waaw euh, waaw wooy ma limaam mu laala mu laala tuuti si affaire moom tamit day <clears throat> léeg-léeg mu laal laal yow la kii ci ci laay kon kon jëndi ko <coughs> booy kaay fii ma may la bës waaw kaay may la bës waay lima kaay fii ma may la bës tuuti waaw kaay may la bës waay. may la bës sang bi. may la bës woon ak sang bi ma xam ne. bi téléphone bi. waaw sang bi. waaw léegi euh, dama la doon laaj ci ñi nga xamante ni ñoom euh, say say doom lañu li sa waajur def ci ñoom. def nga ko ci ñoom. waaw ah laa ki mooy Seydina Limaamu. mooy Seydina Limaamu mooy sang moom laa ko tuddee. Mm-hmm. donc nag yàlla defal moom affaire zikr bàyyi laay moom yàlla daf ko may nekk si trop mhm. na wéeru kon. yàgg à l'âge de 13 ans 13 ans 14 ans 14 mhm. magam 15 ans après keneen ki si topp. Mhm. ans micro micro bi. waaw ans. keneen ki 13 ans 14 ans. ñu laala ñu si bàyyi. waaw léegi ñu ñu ñu ñu barkeelu rek. ci li nga xamante ni <laughs> comme ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci kii bi waaw waajur bi tàggat na la. Euh, dafa mel ni kii. loolu noonu ay exemple la ci biir quoi te lu ñu lu ñu neex la macha allah dañ naan la jërëjëf wàccoo wàccoo sa ànd fi la tegoon yow tamit wàccoo fa ba ñëw teg fa say doom loolu macha allah lii moom exemple la ci jamono ji nga xamante ni instant yi nii nee nañu xale yi léegi comme ni ñu koy faral di wax xale yi ñoo violent dañ koy wax sax dañ koy wax ci mbedd mi xale yi ñoo violent léegi mais lii moom sant yàlla bu baax. Ah, non sol na tubéyam sol na mayam ak capuchon ma. wala boo duggee da koy teg ci yoon daal acca demal dawal sëy naa li baaba gëm na noo te nii wóor na noo xayru xalxi laay bàyyi laay ma jàmmalaay ñun gëm na noo te lii wóor na noo xayru xalxilaay baay laay ma nga jàmmalaay uhuh. ah Seydina Limaamu Laay jar naa way li jiitu muy feeñ fii ndakaaroo ngi woon fii waaye siiwul xamee suwul turam woowu ak gox ba Seydina Limaamu Laay moo ñëw yëkk yaa ji naan jàmm yàlla yéen laa woo nit a ginne ñëw leen jaamu buur bi yeyoo sabal mm-hmm. kon gëm na noo te lii wóor na noo billaahi xayru xalxilaay baay laay ma nga jàmmalaay mm-hmm. mu ni adibo daayalaay mm. ayaama saralin si jinni ini rasulullah ilaykum ajibo wuy yàlla yaa maxsaral insi jinni yéen nit ñi ak jinne yi ini rasul ini nakata yàlla moo yónni ci yéen waaye ba mu xaajee jëmm ju lu mu waxoon muhammadul bii di muhammadu minal bii di xat aswada mu ne muhammad ma weexoon ñuul na ndeysaan muhammad ma weexoon ñuul na bañ ko weedee dafa xàjja ma ji ni muhammad ma weexoon ñuul na du ma beneen yonent de waaye yonent ba feeñoon ca màkk moom moo ñëwaat fii feeñ ci jàmmalaay balaa ya nga naan aajiboo aajiboo aajiboo laay aajiboo daaya laay wuy sile bay laay ni ajibo ajibo ajibo laay ajibo daaya laay wuy sile allahumma salli ala sayyidina booy may naa la bës voilà mbokk yi euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah foofu la ñuy euh, tëjee ah ci li nga xamante moom ngeen seetaan nii léegi sëy na limaamu Mandione Laye <laughs> jaajëf euh, playboy waaye tamit ah macha allah sëy naa Mandione Laye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax lii moom na ci waajur yi yëpp xool gën a dimbali xale yi surtout gën a dimbali xale yi parce que xale tey boo ko jàngalee diineem rek mm-hmm. mooy li nga xam tey di mën nga jox respect mag. mën nga xam fooy teg sa tànk di nga mën a takk sa ndigg xam nga fin des temps waay mmh. dañu nekk si aaxiru zaman mmh. mbedd mi dafa am lu bari lu muy joué ci xale yi mmh. télévision bi am lu xam ne ay yàq Chérif Ousseynou doon wax ne noonu bi gën a mag mooy télévision te kenn ko nekk jënd nga ko dugal ko sa saal muy enseigner say doom te lu dara nekkul def ca dara dafay yomb balaa caa mbedd mi def dara yow fexeel ba yow say doom ngeen di am prise de contact di di conforté wu mm. di gisee nga koy leen di xamal diine mm, mm. fi mu ne mën na la di waxal di la waxal moom mii ak ay samay doom bu jigéen ñi aussi lu ñu xam léeg-léeg mën nañ ci def benn benn jigéen ñi wallaay macha allah donc nit ki da koy xamal dara mm-hmm, mm-hmm. boo ko xamul dara boo génnee seytaane xamal ka dara wala mbedd mi xamal ka dara mm-hmm. quoi donc nit ki mën na am savoir vivre mën na xam la vie mën na xam àdduna te du génne diineem waaw luy civiliser rek l'islam moo la gën a civiliser. Mhm. donc pourquoi ñu ne boo pour nga nekk playboy rek pour nga nekk boy town rek il faut nga tux mhm. il faut nga naan il faut nga wax wax wi insolent ay yenn wax yuy déwaalu non booy bi dañuy toog ñuy dugg ci débat léeg mu ne ma mhm. noo mu ne ko booy je suis son père li ma xam-xam na non mais père dañ ci waxtaan ñu waxtaan léeg-léeg sax TikTok bi mu naan ma non man maa la dàq ak affaire yooyu mais noonu la nga profiter dugal li nga bëgg a dugal mais kenn du sori say doom mm-hmm. parce que responsabilité bu mag la mm-hmm. kenn ku nekk sàmm la mm-hmm. te sàmm ëllëg dinañ ko laaj naka nga ko doon sàmmee parce que kenn daal loolu woo julli parce que waa ji nee na ma noon bi gën a mag ah, parents yi léeg ay noon yu gën a mag la ñoo gën a bañ seen doom ma ne ko nu mu leen bañee mu ne ma nit koo xamee ni tey bu tabaski jotee mu ne fii ñu dem tànnal xar mu la neex ma jëndal sa yaay bu korité jotee mu til ko mbasin bu gën a rafet bu lekk jotee mu utal ko lekk yu gën a neex te du julli mukk ni kaay julli mhm. du jaamu yàlla mukk ni ko kaay jaamu yàlla mais kooku noonam la mhm. wu ko jàmm mais nag waajur bi na xam ne ëllëg yow mu la xiyaam mhm. dinañ jël si lu baax fayee xale bi xale bi ni woy yàlla suñu papa nga nii dem àjjana mais daawuñu julluloo daawuñu woorloo daawuñu nattuloo azaka kaay raxasal ma oto bi kaay ma yónni la rek la nekkoon ak man yàlla dafa juste Mm. yàlla daal di jël ak xale ya mm. daal di jël parents yi li ñu doon liggéey daal di jox xale yi mm. jabar ji ñëw taxaw <laughs> man mi aussi amal na ma àq ndax defaloon nga ma li defaloon li fóotaloon nga ma survêtement yeeg yooyu yàlla jël àq waaw bu ñu jëlee àq yi ba nga jeexal fan nga jëm ca safaan nga responsabilité bu rëy la les parents nañu jël seen responsabilité bàyyi xale yi ñuy nelaw jusqu'à heure yi du ñu julli am na xale yoo xam ne koor la ñuy gëj a julli mais fu ñu teg loolu doom da nga koy surveiller ndax ñu ngi mm-hmm. julli mm-hmm. Mm-hmm. comme lii ma def nii teel a jël xaal bi wér mu nekk ci diine xam na ne jël na wér da xam na ne dafa war a jaamu waaw donc donc c'est ça la vie àdduna boo fi nekkee da ngay da ngay tette say doom question li luxe nga leen di dugal rek wala jëndal leen xaar dafa leen monsieur wala dugal leen sa oto wala jëndal leen de de de beaux vêtements mais li gën waaw nga teg leen si yoonu siraatal mustaxim ñoom tim bu ñëwee ñu tegaat seen yoonu doom siraatal mustaxim mm. mu nekk nag ay awante parce que loolu lañ suñu papa defal donc c'est très normal pour ñu ñu ñu ñu def mm, mm. donc yàlla nu si yàlla a dimbali nee nañu nag nee nañu nag jàmbaar amul ku yàlla dimbali rek yàlla am mm-hmm. waaw amul parce que ñoo xam dañuy am ay doomu imam mm-hmm. ñu nekk am na doomu sëriñ soo xam ni si baar bi la ñuy nekk leen mm-hmm. effectivement waaye nag comme yàlla moom bu la dimbalee ak nga koy ñaan ni que yàlla jàppale ma sama njaboot. Mm, mm-hmm. yàlla dina la jàppale sa njaboot ah. parce que yow à toi seul mënoo mm-hmm. éduquer kenn. Mm-hmm. mi ngi mel ni dund mënuloo dundal kenn. bu la yàlla seetaanee yow sa bopp sax mënoo ko dundal. yàlla jàppul du baax comme que moo si jàpp. Mm. waaye léeg-léeg di wax sa doom naan kaan maa la dundal maa la mm. sàng yow mi nga xam ni bul woon man doo am dara non amoo dara wala yàlla la. yàlla daf ko jaaral si yow rek. sa papa daf ko doon def si yow da nga koy def si. waaw bien sûr kon wasalaamaaleykum wa yaa ma